Encaan rek Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ginnaaw ma waxoon waxeet Abdoulaye Wade fëllatina feneen maa defoon defet vox populi nañu ginnaaw leetar ba mu fi bindoon doon ca wax maître Madické Niang lu ko neex musiba ak mbelengaan mu ne mu yàkkoon ko ko ca daanaka ne ko Madické dëmb nga rek la ko ca waxul woon Abdoulaye Wade bindaat na beneen leetar démb di ca xamal maître Madické Niang ne keroog ba muy wax xol la waxee dafa waxte xalaatul mu ne ko ca leetar ba war nga maa xam-xam gu toll ne damaa demee woon xadar ci mbir yi li ma bëgg moo di li fi jot a jaar ko quotidien nañu ci barkeb Serigne Touba réeroo gi amoon ci diggante Wade ak Madické jeex na Wade nee na ko li nga jël yàlla sunu borom seede giñ ci Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul mi ñu bokk tax na ma gëm ne li ngay wax dëgg la ci yow Sud Quotidien nañu Abdoulaye Wade mi fi ubbi woonub defante diggam ak maître Madické Niang dellu na gannaaw ci coow li Les Échos nañu moom kay virage bu 180 la def ba nuppi jël coow li sippi ko ay sursam maanaam ña B ci PDS ci wotey Ibrahima Dické Niang ginnaaw bi ñu fi doon feetalante ne ay kaboy kenn ku nekk ci ñoom wanaasu nga mer ma nga guuxoon vox populi mel ne kuy indi ay firnde ci loolu ndax mi ngi ñuy xamal ne kii di maître ma Dické Niang bi mu jàngee lettre Abdoulaye Wade bi bu nuppi dane fàtte naa lépp teg naa lépp ci suuf teg ci di sant askanu Sénégal ak di leen baalu àq ci naqaru xol ak xol bu jeex bi ñu amee bi ñu déggee coow li réew coow la ca des li ñu war a xam kay léegi ba coow lu mu génn ba dugg la tribune nañu ñaawo kalash bi doon xeeñ ci diggante Abdoulaye Wade ak maître Madické Niang yàlla wis na ci ndox mu sedd coow la fay na la Sénégal nañu Wade ak Madické di Serigne Mor Mbaye dafa bëggul ku suufu Karim Wade ci parti bi Yoro Dia nañu xeexu Abdoulaye Wade bu mujj jamono ji moo di fexe nu mu jëlee parti démocratique Sénégal teg ko ci loxoy Karim Wade docteur Ba ne waa l'Observateur PDS dañoo jàpp ne alali Abdoulaye Wade la anki dina kay di ndax coowal Abdoulaye Wade ak maître Madické Niang dina fi doxe fay ni dégg nañu maître Abou Talib Gueye di xarit ci maître Madické Niang muy sàkku ci Madické Niang mu sampu ndëndëm doon candidat ci présidentielle yi 2019 yi direct info nañu ginnaaw Karim Wade Khalifa Sall bokk ci wotey président yu yi taq na suuf lool est seeni militant campagne waa parti réew ca Thiès anki dina kay nañu ma nga leen di bëgg a jeexal ndax ma ngay fàqat militant yi Idrissa Seck yi benn benn di yóbbul Macky Sall ki ci mujje di Ami Diouf moom non seulement dafa jóge ca Idrissa Seck dem ci Siré waaye dafa taxaw temm ci defonteeg Idrissa Seck centre de vote yi nga xam ne Idrissa Seck moo fa mas a teg tànk ca Thiès moom la bëgg a nangoo ci moom mu di centre Modakan Iba Katiba Cité Pilo ak centre professionnel centre des œuvres universitaires bu Kees ak bu Bambey am nañuy gan billa Sénégal yi Fallou Sène di étudiant bi ñu fitaloon mu faatu ci université Gaston Berger bu Ndar Macky la mu digoon ay mbokkam def na ko yéenekaay bi nañu jabar ji fi Fallou Sène bàyyi moom ak ñaari frère yu Fallou Sène ñoom la ñu fa yóbbu ñuy liggéey mu des nag léegi mbir yi sotti ba ñu jël doom ji fi Fallou Sène bàyyi def ko pipi de la nation soleil national xëy ñu xamal ne président de la république Macky Sall démb ca ndajem conseil des ministres yéenekaay mi ñu xamal ne moom Sadio Mané ci diggante ñaar fukki fan ak ñaar dina fi football juróomi max yu am solo dana football ak Tottenham football ak Paris Saint-Germain football ak Chelsea football ak Naples football ak Manchester City record yéenekaay xëy di football ak moom Sadio Mané ña ngay waxtaan ci lu bare bare Sadio Mané dem sax ca waxtaanoo ba xamal journaliste record yi ñi mu jàppee ay royukaay ci wàllu football maanaam ay idolam nee na Ronaldinho la ak e Hadji Ousseynou Diouf